wax dëgg yàlla ginnaaw sunu baay bi nga xamante ni moom la yàlla suñu borom wàcce ci moom ndogal lu metti li wàcce na ko ci keneen koo xamante ni moom tamit daj na ay coono yu metti ci dundam ñàkk na ba tumuraanke dekk ci bërepp boo xamante ni ndox mi jël na ko ci barak boo xamante ni mi ngi daanu ci seen kaw njabootam kooku mooy kan kooku mooy paap kan mooy pap? nañ leen bàyyi ngeen seetaan paap mi nga xamante ni moom it yàlla suñ borom wàcc na ci moom dogalam bu màgg bi njabootam gu sew gi jooy naa leen wax dëgg yàlla nañu seetaan paap kàddu yi nga xamante ni moom la doon yëkkati atawaqaw muhammadu xayrul alamin wasilati sonn nañu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 waaw ñoo fi nekk. Eh, depuis kañ ngeen dëkk ci kër gi. fii depuis 2005 lañ fi ñëw su ma juumulee wala 2003 parce que depuis jamonoy euh, Ablaye Wade la woon ñu ñu jëlee côté Nord Foire bi noonu ci armeeru côté armeeru Saint-Lazare ba ñun lañ jëlee woon ci wàllu miir miir aéroport bi indi ñu fii jour boobu sax yàlla ji dafa taw ci suñu kaw ci camion bi ñu indi ñu fii bërëb gi wàccee ñu ci hôpital traditionnel bi fee ci centre bi fay ni hôpital traditionnel fa ñu wàccee woon. ñu nekk fa jamonoy nawet lay tombel noonu sax après bi yàggul dara nag après ñu puus ñu waat ñu gën a ñëw ci wetu terrain bi fii boobu fii amul kër ëpp àll la woon ay garab rek nga fiy gis nga bi maa ngi lay ziar bu baax di la nuyu ci barka Muhammad di ñaan dimbal rek te yàlla tax buñ ma mënee tabaxal fii parce que ñun fii ba léegi état bi joxuñ ñu ay kayit pour ñu moom terrain bi wala ñu utal ñu fuñ ñuy dëkk ci barke Muhammad alayhi salaatu wa salaam yóbbu ñu fi ñuy dëkk ñu may ñu ko wala ñu defaral ñu fi ñuy dëkk ñu am fi ñuy dëkkee dal suñu xel dal ci barke alxuraan parce que fii ba léegi état bi dañu fee indi bàyyi ñu fii mais joxuñ ñu ay kayitu terrain ba léegi ay kayitu terrain ba léegi gisuñu ko. dañoo toog fii nii rek ci barke Muhammad alayhi salaatu wa salaam ndax Ablaye Wade dañu fi indi woon Macky Sall ñëw na toog ba toogaat. di ñaan yàlla nag ci barke alxuraan rek ñu dimbale ñu te yàlla tax may ñu fu ñu mën a dëkk wala ñu dimbalee ñu tabaxal ñu fii bu ñu mën a jox ko ay kayitu kër ñu tabaxal ñu defaral ñu fii ñu am dëkk waaye bu ñu mën a dëkk suturloo ko ci barke alxuraanul karim ci barke alxuraanul karim man aadama maa ñaan dimbal jooju te barke Mouhamed xool ci samay njaboot yi te xam ne man ñii ñooy sama reenu xool parce que suñu budul dara. tay bu xif bu xiin amone tay barke Serigne saliw mbake sama xel du dal parce que ñi lay xalat ndax sama xel ñi lay xalat parce que ñi ñoy sama reenu xol parce que ñom ñoy sama avenir euleuk bis de ñow ma màgget ñoo may yore wala bis de ñow ma làqu ñom ñoo may denc ji. أيا جامع الخيرات يا ملجأ الوراء فصلني بحبل la yura يتقطعون la ci barke Mouhamed alayhi salaatu wasalaam yàlla na yéex na ci barke alquran di leen ñaan dimbal rek te alquran rek tax ci barke alquranu karim ñu dimbale ma rek te yàlla tax ma dimbali sama yaay jee toog te jur yar ma ba ma màgg tool nii tey dem ba am njaboot am soxna toog ak sama soxna ak sama yaay te sama papa mu ngi puut mook sama mook sama waajur dañoo bàyyi dañoo tàggoo yàlla dañoo tàggoo àdduna daal dara jaru fi dara ndekete lu dul jaamu yàlla jaru fi dara àdduna dara jaru fi dara lu dul jaamu yàlla nañu fexe jegeel sunu bopp ci sunu boroom nañu xërtal sunu bopp ci lu yàlla gërëm nañu neexal sunuy xol ci bànneexoo ci sunu boroom xamuma tey la xamuñu suba la xamuñu at ci kanam la xamuñu ay weer la xamuñu kañ la lan moo tax ñun duñ xalaat dee lan moo tax kiy dem di yàq alalam ci lu yàlla gërëmul du xalaat ni moom bis dana faatu lan moo tax ñun duñu bàyyi sunu xel ci sunu bopp ëllëg yomal xiyaam sunu borom dinañu laaj kenn ku nekk sa njaboot ci lan nga ko sàmmoon mu nekk njabootu zahir ak baatin njabootu zahir mooy doom yeeg jabar yi waaye njabootu baatin ki mooy sa cëri bopp yi cër yi nga doon raxas bi ngay jàpp naan yàlla maa ngi lay jéggulu lépp lu ma mën a mës a jàpp te gërëmoo ko lépp lu ma mës a wax te gërëmoo ko lépp lu ma mës a noyyi gërëmoo ko lépp lu ma mës gis te gërëmoo ko lépp lu ma mës a dégg te gërëmoo ko fépp fu ma mës a yëkkati sama tànk jéggi dox dem fa te gërëmoo ko waa dee nag duñ ko bàyyi xel ñun comme yàgg-yàgg dañuy dee comme yàgg-yàgg dañuy faatu comme yàgg-yàgg danañ dem ba sunu jëmm yi saxe danañ dem ba sunuy yax jeex danañ dem ba ñun dootuñu nekkati kon fii ñu nekk lan lañ fi war a def jaamu yàlla gu sëkk sellal sunuy xol bëgg sunuy moroom te yàlla tax bañ a seetaan ñi ñàkk ñuy gën a tumuranke bañ a seetaan ñi nga xamante ni ñoo feebar ñuy gën a sonn bañ a seetaan ñi nga xamante ni ñoo ñoo ñàkk bañ a seetaan ñi nga xamante ni ñoo yàqu ñu gën a yàqu kenn ku nekk ci ñun mën naa defar moroomam kenn ku nekk ci ñun mën naa Desan moroomam delloo si moroomam ndeysaan pap njabootam gi man de dee gu nekk sama dee rek la may jàngal deewu ku nekk sama dee rek la may jàngal faatu ku nekk sama faatu la may jàngal bis bu nekk mu ngi may fàttali ni bis tey ndax dina la fekk suba bis bu nekk mi ngi may fàttali ndax bis bi dina la fekk déwén weer wu nekk mi ngi may fàttali ndax weer wii di ñëw déwén dina ma fekk kon ndax ñun war nañoo mën a nekk ci lu yàlla gërëmul ndax war nañoo def lu naqari yàlla ndax war nañ fee nekk di fenalante ndax war nañ fee nekk di liggéeyante ndax war nañ fee nekk di yàqalante ndax war nañ fee nekk di toroxalante ndax war nañ fee nekk di xeebante nit dana am doole sax muñal la ngir jëmmi yàlla nit dana am lum la bëgg a wax sax mu muñ ko ngir jëmmi yàlla maa ngi leen di laaj kan moo mës a dem ci ay armeel fekk néew ya di xuloo te ñoom ñëpp a jegewoo taqaloo kenn ku nekk nekk ci paxam allahu akbar pax mi yàgg-yàgg day ñëw muy guddi muy bëccëg muy taw mbaa muy naaj muy mag mbaa muy xale muy góor mbaa muy jigéen du ko xees du ko ñuul ñépp la dee di wàcc ci seen kaw ñépp la dee di wàcc ci seen kaw nañu joxante loxo baalonte ak jéggulonte bàyyiwante xel te xam ni àdduna bii ñu ñëw day jeex ñun ñi fi ñëw dañuy jeex dañu fexe jeexal sunu dund ci yàlla mi jeexalul dara Pape nag dem na bàyyi na fi njaboot gu sew bàyyi na fi ay xale yu xamul bànneexu àdduna bayna fi soxna su xamul dara bayna fi yaay ju jaaxle te tumuranke ku am dundu ku am ceeb ku am diwliñ ku am yére ku am suukar luway am luway man dimbali ko njabot yi xamni day wallaay lazi laa ilaha illallah soxla nañ ko wallahi lazi laa ilaha allah soxla nañ ko te ku ko def jaamu nga yàlla te ku ko def jaamu nga yàlla te ku ko def sunu borom dina la fay ana ñun sunu yërmande ana ñun sunu yërmande balaa ñuy mën a dimbalante rek nit ki faatu kenn ku nekk di wane daraja ak maqaama kenn ku nekk di wane ni mu toll ak ni mu mel kenn ku nekk di wane turam ak darajaam waaye ki faatu nag fan lañu koy def sang ko ba mu set takk ñaari loxoom ni ko dootoo jàppati takk ñaari tànkam ni ko dootoo doxati jël wëtteen sol ko ci gémmiñam ni ko dootoo waxati jël wëtteen sol ko ci bakkan yi ni ko dootoo dundati jël wëtteen sol ko ci ay bëtam ni ko dootoo gisati yow lenn rek moo la fi dese mooy jullee la gas pax ba mu xóot tàbbal la ci suul la dem sunu yoon muy guddi muy bëccëg muy taw mbaa muy naaj danañu fanaani barzaq nañu xalaat bu baax àdduna dara jaru fi dara lu dul jaamu yàlla àdduna dara jaru fi dara lu dul jaamu yàlla nañu moytandiku liggéeyu tey kese nit war naa mën a liggéey ba xëy faatu bàyyi fi liggéeyam ay nit di ci liggéey di ci liggéey yàlla di ko ci fay mu continuer di ràmm di ràmm di ràmm tabax sa immeuble dëkk ak kuy xiif di mar su la yàlla joxoon àjjana wallaay lazi laa ilaha illallah ñu ñàkk nuñ ci bokk ñu am doole rek ñooy dimbalante bàyyi ñi ñàkk ñuy gën a tumuranke ndeysaan bala ngaa xam ni dee moo metti nga am ku la jege ku dem wala nga am yaay ju foor ci yow dem wala nga am baay bu la jege dem nga jooy ko waaye moom mi dem nag moo ëpp naqar ñëpp ndax jóge na fu mu bàyyi mbokkam yëpp dem ci dëkk bu mu xamul kan nag kan la fay fekk xamul nan lay mel lan moo tax cëy sunu àdduna bi àdduna dund dee jeex na walaay des na kenn ku ci nekk la nga doon jëf la la yàllay fay nañuy muñ nattu yi nañuy muñ nattu yi tey nangul yàlla li mu ñu teg nañ jël sunu alal jaamu ci yàlla nañ jàngal sunu njaboot jaamu yàlla dañu xam sunu diine nanu dund sunu ngor nanu gore ba xëy faatu ñi nekk ci kaso yi yu bonuñu nattu la ñi xiif tëdd ci kër yi nekk ci kër yi nattu la kenn ku ci nekk nag yaay àtte sa bopp ci mbir yi ku nekk xam nga li nga doon ku nekk xam nga li nga capable nit dafa lëndam kenn mënta àtte kenn kenn mënta àtte kenn ndeysaan maa ngi ñaan yàlla maa ngi ñaan yàlla suñu boroom ñii nga xamante ni ñoo dëddu yal na àjjana doon seen dëkkuwaay yal na leen yàlla jéggal seeni rëcc-rëcc waaye ñi fi des yal na yàlla jubal seeni xol jubbanti seeni xel tënk seytaane ba du mën ci ñun dara saxal ñu ci jaamu yàlla gi yàlla gërëm sunu dund doon ngërmande sunu dëdd doon ngërmande yàlla bu ñu bew yàlla bu ñu boddi yàlla bu ñu gis suñu bopp yàlla bu ñu naw suñuy jëf lépp lu nuy jëf yàlla na yàlla tax lépp lu nuy def te yàlla taxul yàlla buñ ko mën bu dee tawat yàlla nañu ko yàlla tegal mu tëral ñu ba duñ ko mën jàppale leen famille yi te yàlla rek tax jàppale leen suñu bopp la ñuy jàppale ëllëg yomal xiyaam gënu jëm dëkk boo xamul loo fay fekk lépp loo dégg ni baax na fa yóbbaale ko ngir bu nit ñi dee xiif sax nga am loo denc àdduna ñu ngi xëy rekk di ko topp duñ ko jot mukk te àdduna képp ku koy liggéeyal du la gërëm du la fay du la wàcce boo sonnee sax doo noppalu waaye yàlla ku koy liggéeyal doo tàyyi doo bàyyi doo découragé da ngay gën a gëm tey rek xam ni yow yàlla rek a la ñor yàlla na ñëpp dem aljana